kujje gi boo seetloo yëngu na depuis un certain temps ça a commencé avec Idrissa Seck tey jii ni on parle de Barth Ousmane Sonko plus le seul bi nga xam ne moo téye yëf yi jamono ji nu ngeen koy dundee. xam nga euh, Barth bëgguma nga dugal ko di tudd Barth tudd Idi. Barth yamuñu bokkuñ parcours bokkuñ jaar jaar. Idi moom lii muy def loolu la xam. mooy lan lii muy def nii rek. mooy lan mooy ñuulul weexul. mais ke moom loo ko mën a sikki sikki di nga xam ne am na yoon wu mu jaar. gisaguñ leneen lu mu wane bokk lu dul la mu wane depuis ci mu duggee ci politique ba léegi. mais li wér-wér mooy président Ousmane Sonko laa la wax nañ arrière ay bandam arrière ay discours man li may faral di wax rek gi ko ko fi wor midi une heure ko gis. ndax li Sonko mooy kan ba loolu war comme si kilifa la koo xam ne. yàlla dafa ànd ak moom mooy ku muy àndal. dalay wan ngor gu mat sëkk te li ma la wax léegi sëñ Abdoulaye doo lebal nit lu baax lu bon fekk la ci te ku muy àndal ngor la lay wan. ndax euh, bi ñu génn bi ñuy dugg ci élection locale yi leader yi nekkoon coalition Yewwi Askan Wi bëggoon ñu jiital Barthélémy Dias bëriwul hmm. mel na moom moo tax fëgg ci taabal ci ne Barth mooy candidat mu jaral ko lu ne mu jaraloon ko ba mu ba ba naroon a ba génn coalition Yewwi Askan Wi naa jàpp naa ne jàpp naa ne ko Barth di wax non non moo daw fàttali nekkoo ci loolu da nga laaj ma leer dama ñun ba léegi nii rek li ñu ànd ak loolu la ñu Barth di woon ba léegi leneen buñ gisoon leen. dañ koy wax Barth waxoo Khalifa. non yow yaa ma tuddal Barth. Barth nga gën a wóolu Khalifa non yow yaa ma tuddal Barth. Khalifa yi ni ma wóolu Barth laa ko wóolu Khalifa ba tey gaa ngi dal ci kawam. non non Khalifa di ko attaqué. non Khalifa ñu dal ci kawam ñoom ñoom ñoom la engagé man Cheikh Thioro da ngay bàyyi ba ñi dal ci kawam ñëw fii nga laaj leen. <laughs> mais loo ci xalaat. non li ma ci xalaat mooy Khalifa ni ñu àndeek moom gisaguñ mu ne day dem ci dialogue bi. Mhm. déggaguñ mu wax ne day dem ci dialogue bi. bind ne ñoom bëgg nañ xalifa dem ci dialogue bi mais dernière décision bi moom taxawu Sénégal ñoo koy génn communiqué bu ñu war a dem ci dialogue bi mais ñun suñu position leer mënuñu seen ay alliés demee yéen ngeen des. nañ ñëpp dem dialogue bi ñun loolu concerné wu ñun suñu position mooy. jërë ngeen wét ci ku jéggi. déggoo ma wax ñun suñ suñ suñ suñu wétal mooy askanu Sénégal. askan wi est-ce que mat na foofu laay waxee. askan bi motuloon deux mille vingt et un heure bi Ousmane Sonko mi ngi ci kaso bi askanu Sénégal bi tey Ousmane Sonko. da ngeen a bettoon gars yi bi passe sera différent. c'est-à-dire. Macky Sall wax na ko dafa amoon fa amati maanaam l'armée n'était pas préparée par l'armée euh, la gendarmerie. na def na def lan defoon rek Ousmane Sonko bi bi bi li amoon de am boo fekk na Ousmane Sonko mu nekk garde bi